ngi tudd El Hadj Abdoulaye Seck euh, di ancien banquier après sama reconversion ma nekk conseiller culturel en milieu scolaire et actuellement nii maa ngi au niveau du lycée euh, de Yoff Village lycée de Yoff euh, village bi nga xam ni président Macky Sall moo def un décret il y a pas longtemps tuddee ko lycée Sembène Ousmane. je suis écrivain mais avant avant Tranchant du Sabre bi musuñu ma publier et pourtant j'ai sama premier manuscrit maa ngi ko bind en 1981 tuddee woon ko la balance temps yooyu nouvelle édition africaines ñoo fi nekkoon ma yóbbu ko fa ils avaient ñu defoon ay corrections joxaat ma ko pour ma corriger ko biñ ma ko joxee moo am lu ma ci dal ma ni bugguma paraphraser mooy di ci inspi di xool livre bi di bindaat li ma bindoon j'ai déchiré le manuscrit. Et depuis lors, je n'ai plus repris. Mais entre-temps, sama benn un, un de mes anciens maîtres bu de Joseph Diakité nekkoon euh, enseignant à l'école de Soumbédioune bi nga xam ni sam papa moo doon directeur bi moo ma demandé à ce que ma ñëw liggéey ak moom c'était très important et très intéressant pour moi parce que Joseph Diakité moom moo offrir ses comédiens à la troupe de au théâtre national Daniel Sorano lors du festival mondial des arts nègres bi ñu ubbee Sorano moom dafa amoon ay activités di def ay répétitions en milieu scolaire moom tamit alors cette troupe là la reversée à Maurice Sonar Senghor muy ñoomin il euh, y a Siba Komnos qui dirige actuellement euh, le théâtre en Guinée ñooñu la reversé à Sorano ñu nekk les premier pensionnaires du théâtre national Daniel Sorano je suis un passionné de Cheikh Omar alors un jour doomu imam bi daf ma woo ni ma sama yaay daf la soxla alors ko boobu musuma toog ak imam musuma toog ak yaayam ma ne ko qu'est-ce qui se passe mu ni ma sama yaay nee na naka laay amee un professeur bu mel na yow te xamuñu la ñoom ba ni ko sax danga nga soxor alors euh, mu jël sama numéro la même jour yaayam woo ma daal ma est-ce que mën naa ñëw këram a Ouest Foire ma ne ko y'a aucun problème mu ne ma non je vais t'en dama lay yónnee chauffeur mu jël si la ma ni ko non bàyyil ma ñëw mu ne ma non non yàlla ci la ma yónnee nit ñu jël si ma ma dem fa mu may ma sax la photo bi Thierno Mountaga ak Serigne Mansour si borom daare ji keroog jooju la ma ko may ak benn tapis bu rafet alors euh, ñu ñëw ndeke dafa amoon benn réunion bu ñu doon def ñoom parce que dafay diriger benn association bu tudd Lana Omar Amadou une association dentre d'entraide de femmes alors association boobu di fêter son anniversaire au théâtre national Daniel Sorano bi ñu toogee ci waxtaan bi dans un premier temps daf ni mën nga déglu sama gaa ñi boo ñëwee rek nga toog ngay da ngay déglu nga déglu gaa yi def seen réunion mu am fa un pensionnaire de Sorano du théâtre national Daniel Sorano bu ñu demandé à ce que mu defal leen une pièce pièce de théâtre boo xam ni euh, dañ koy jouer au théâtre national Daniel Sorano dans le cadre des activités ci euh, de de l'association ci anniversaire am bi ñu paree bi ñu kiiyee ba fisole mu présenté ma nag daal di leen euh, monsieur Seck euh, moo yor xale yi et tout sa alors euh, mu ni ma li nga dégg fii est-ce que mën nga ci sànni sa kàddu ma ni ko waaw mais li ma ci gën a intéressé mooy pièce bi nga xam ni moom la seen artiste bi ni moom lay préparé pour jour anniversaire bi Euh, li ci ci li tubaab lu tubaab di wax acculturation ci la pièce bi doon porté ma ni ko nag je m'excuse mais acculturation euh, résultat la li ko lal buñ ko jiitalee mooy gën a yemb mu ni ma lan la ma ni ko xam nga tubaab yi dañ ñu dañu wëlbati suñu xel dañ ñu changé looloo tax ñuy wax acculturation et c'est très dangereux te mission bi ñu am mooy rétablir ñun suñuy base soo indee acculturation tout de suite rek entre ñaari sœur ay seex kenn ki jàngi France kenn ki musul génn fii seen opposition ci biir kër gi soo indee loolu rek les gens ne comprendront pas donc da ngay dem à la source et la source c'est le mensonge du tubaab le colonisateur bi mu ñëwee fii dénaturer suñuy suñu yël suñu lépp pratiquement euh, des personnages comme El Hadji Omar dama tudd El Omar rek soxna si di lox fi mu toog daal mu ma si sekk may ma ma noppi mu ni ma man Cheikh Omar fu ñu ko tudd damay damay tremble mën naa sax daanu alors ma ne ko mu ni ma lan la ñu fen ci Cheikh Omar ma ne ko man par exemple ci petite classe yi mus naa gis ci benn livre fàtte naa ban livre laati ñu dessiner El Hadj Omar ci benn barigo mu explosé ñu def ci ni El Hadj Omar dafa xaru en sautant dans un baril de poudre alors loolu inspiré ma ma def ce scénario là mu ne ma est-ce que mën nga ñu defal euh, préparer dara ci loolu c'était le vendredi le samedi dimanche lundi matin j'étais dans la bibliothèque de l'école di réciter scénario bi donc j'ai mis à profit tout le week-end pour préparer scénario bi mu génne ma scénario d'une centaine de pages boo xam ni dama bi ñu bi ñu defee pièce bi ba pare joué ko à Sorano mu am succès Thierno Seydou l'imam daal ni ma monsieur Seck gis nga lii nga def nii mu yéem ñëpp ma ne ko ah mu ni ma bu doon gratte-ciel ngay yéeg tegagoo sa tànk ci première marche bi ma jóge fa seeti sama benn mag le doyen Majib seen yóbbul ko scénario bi mu xool mu ni ma dinaa ko xool quelques jour après mu woo ma ma ñëw ma ñëw mu jël ko del teg sànni ko nii daal ni ma lii rek nga mën wax ci Cheikh Oumar ma ne ko question mu ni ma tu n'as rien dit tu rien dit demal nga liggéey ci Cheikh Oumar di nga xam mooy kan alors idée bi foofu la jóge alors au lieu du baril de poudre ma tuddee ko le tranchant du sabre pourquoi xam nga le président Léopold Sédar Senghor bi ñu ko admettre à l'Académie française bi mu demee dañ ko sargal jox ko jaasi qui est le symbole du pouvoir le symbole du savoir ñu jox ko jaas jaasi mu ñëw Sénégal géwél ji di ko woy naan Senghor indi na jaasi xam-xam alors tout de suite ma ni waaw Senghor c'est un écrivain un politicien chef d'État Cheikh Oumar c'est un intellectuel jàngalekat la c'est un chef de guerre un général d'armée c'est un administrateur il gère un empire toutes ces dimensions là réunies ma ni kon sabre bi bi nga xam ne dafay incarner peut-être violence mën na rey mën na tuur deret Cheikh El Hadj Omar sabre boobu ñaw ñaw boobu nag xam-xam la xereñ la yiw la lu rafet la diine la alors loolu tax ma tuddee ko le tranchant du sabre pour pour matérialiser la dimension multiple de la job pàcc bu njëkk bi maa ko tuddee la fourche partie bu njëkk partie bu njëkk bi mooy la fourche xam nga booy entreprendre il faut nga am outil booy bay fourche am na ci solo pour débroussailler pour dindi ñax yu bon yeeg yooyu pour setal la fourche bu ñaareel bi le semis boo setalee ba pare def say euh, sillon daal di jiw ji sa graine troisième partie bi di labeur labeur en secousse labeur en secousse parce que tout simplement liggéey dafa metti day yëngu su dee ci wàllu tool hivernage liggéey bi dafa ànd ak naaj wu tàng dafa ànd nag tamit ak taw ay orage dënu secousse yi moom la matérialiser noonu ci biir kii bi su dee ci wàllu société nii nga xam ne du ci tool c'est toujours comme ça par exemple étudiant élève bu mën a bu élève étudiant bu bëgg réussir il faut nga jàng il faut nga liggéey pour mën a dékku les soubresauts de la vie donc les secousses de la vie mën ci génn et bu mujj bi ma tuddee ko G et dénouement donc G et dénouement dafay nekk les perspectives perspectives yi nga xam ni comme ñëw nga tu es mën nga produir du warul nekk produit boo xam ni dafa avarié produit bu bon dafay nekk produit bi boo xam ni daf lee placer sur une perspective d'avenir moom mooy symboliser le dernier volet c'est extraordinaire ñi ci jàpp dafa bare xam nga boo nee nit ki da nga bind expliquer li nga bind wala ni nga bindee su fekkee ni goree nga comme ni ma ko bokkee ak Thierno Seydou mu doon sama traducteur di ma jox ñuy defalu di discuter di def des commentaires ci libre bi am nga une base affective te man awma bureau ma bind à l'école lu ma bindee école ci kër gi fii laay bindee donc j'ai un noyau boo xam ni un nid boo xam ni moo ma permettre un nid favorable boo xam ni moo ma permetre ma bind donc dama am chance su baigner dans une ambiance familiale boo xam ni c'est une ambiance assez équilibrée et on me comprend surtout encore bind dafa metti soo xasee ba concentré wu toog di ko def euh, autour de toi danga yaa ngi frustré ñi nga àndal waxatuma laak surtout sa njaboot parce que dootuñu communiquer ak yow ku wax sax nga énervé et tout ça mais daal yàlla suturaal na ma ba nga xam ni yooyu yëpp contingence yooyu yëpp vaincre nañ ko ensemble ba euh, génne génne lii Cheikh Oumar il est énigmatique il est énigmatique am na benn doomam boo xam ni juru ko dañ ko ko may papam dafa gëmoon Cheikh Oumar mais bi Cheikh Oumar di commencé mission am papa ji il avait cent ans téeméeri at mu ñëw tàggu si Cheikh Oumar fekk Cheikh Oumar di jóge Fuuta di dem mu ñëw tàggu si Cheikh Oumar ànd ak doomam doom jaa ngi ànd ak beneen xaritam donc mi ngi tudd di si doom jooju mu ñëw ni Cheikh Oumar comme mënuma la topp dama mag may naa la Koli alors Koli moomu xaritam bi mu ànd lool di am di ay sata daan ni ko suñu suñu suñu xaritoo mënul yem fii comme fi mu nekk sa papa may na la Cheikh Oumar man tamit may naa la sama bopp may naa sama bopp Cheikh Oumar ñu ànd ñoom ñaar anecdote bi ma lay wax mooy Cheikh Oumar daf daan wax euh, bu ñëpp jaaxlee mu ni xaar leen ma laaj ki dul fen alors dafa amoon habitude nag di def retraite su waxee loolu rek dafay tëju mën na tëju def ñaari fan ñetti fan mën na tëju weer mën na tëju ñeenti weer su ko defee benn yoon mu génn gaa yi Coly ni ko ah kon dina ñu am ci li ñu jaaxaloon dinañu am réponse bi Cheikh Oumar introduire def se plans waxtaan ba ñu d'accord Coly wu retourné ñu ni ko waaw Cheikh Oumar ki dul fen est-ce du yow alors keroog la ko gën a mere keroog la ko gën a sermoné say ci kawam waaw ñu ne ko Cheikh Oumar lii lan la lu xew mu leen est-ce que man am naa màqaama nekk nekk man ki dul fen ñu ni ko kon ki dul fen kan la mu leen yonent bi sallallahu alayhi wa donc Cheikh Oumar li ma lay wax ni il est déconcertant mooy loolu dafa énigmatique dafa xereñ ba pare lépp situation lu gën a garaaw fu mu gën a garaawee yàlla yonent bi Cheikh ma Ahmada Tijani ñoo doon argument am donc tant amul réponse bu cohérente par rapport ak l'esprit esprit wu ñooñu son créateur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñam Cheikh Ahmad Tijani du dootuñu ko gis day tëju def na un coma de quatre mois quatre mois tëdd benn place Cheikh Oumar du lekk Cheikh Oumar du naan du yëngu kenn rek moo daan dugg ci biir néeg bi mi ngi tudd Alpha Omar bay la Wane dëkk dëkk Kanel moo doon chef d'état-major des armées de la Géomar moom ak Alpha Omar Thierno Bayla bi ñuy dajee fekk na Alpha Omar bay la nekk kaang jàng nekk wëliyu mais dafa gis Cheikh Omar rek ni ko xam naa la Cheikh ni ko Cheikh Omar ni ko tamit xam naa la gisee nañu feneen fu dul fii maanaam di xamante nañu ci baatin mais Alpha Omar Thierno Bay la dafa wëlbatiku jógee euh, jóge Kanel jóge sa ville d'adoption bi nga xam ni moo doon Aéré Lao topp Cheikh Oumar bàyyi lépp nekk son chef d'état-major général des armées ñooñu nag ñoo ko wëroon ñu mel na que donc Alpha Omar Thierno Bay la am na kuñ ci wax Bootol Samba Ako am na kuñ ci wax Imam Rindiaw am na Alpha Abbas Aj donc pour ne citer que cela mais ils sont très nombreux ñu bare la ñoo xam ni ku ci nekk na nga tekki sa ci sa terroir fa nga dëkk da fay tekki ba pare jël yëpp teg ci suuf topp Cheikh Oumar. Mhm. saabru Cheikh Oumar saabru Cheikh Oumar ba léegi saabar bi xereñam surtout wax naa la ko sànq li mu représenté comme symbole par rapport ak man li ma xalaat. Euh, soo gisee imaam muy julli juma di yor yet di yor yet Cheikh Oumar pour ses prêches sabre bi la daan samp donc moom sabram ci alpulaar ñu koy wooyee silaama sabram du représenté wul violence Cheikh Oumar musul attaqué nit musul attaqué armée alors ko tubaab yi ils l'ont présenté comme quelqu'un un imposteur bu doon jaay doole moo wax la ci loolu ma jox la ci preuve bi mu demee ba nga xam ni dafay sanc dëkk dëkk boo xam ni dafa bëgg toog comme moom dafa daan dafa daan voyager di dox rek alors mu sentir ni léegi mbooloo topp na ko te mbooloo moomu góor jigéen mag ak ndaw dafa ni nañ toog ñu jéem a seet fu ñu am ci suuf ñu installé fa mu amoon nag dëkk boo xam ni ay ñay ñoo fa dëkkoon c'était la forêt ay ñay rek ñoo fa nekkoon mais mu bokk ci empire benn buur bu bare woon doole bu tudd Yimba Sakho Yimba Sakho gëmul dara c'est fit féticheur faalewul yàlla faalewul yonent ba bu war bu la waree attaqué sax soo buggee mu may la arme ci jamono yooyu may la loo lekk ba pare ñëw duma la occupé sa dëkk Cheikh Oumar ñëw ci dëkk boobu daal ni fii dey mel na naka dina baax ci ñun ñu ne ko ah su baaxee tamit moomu ñu ko mu laajte ñu ni ko Yimba Sakho buur bi moo ko moom mu yónni une délégation ci Yimba nuyu ko sargal ko ni ko daal Euh, Cheikh Oumar dafa am sa benn territoire bu nekk fële boo xam ne ay ñay rek fa nekk ak ay xeer dafa dafa fa bëggoon installé ci nag ci say condition yow yimba ni leen su buggee ma jaay ko ko ñu ñëw ci Cheikh Oumar wax ko ko mu recevoir Cheikh Oumar ñu waxtaan d'accord ci mu jënd teritoire boobu ak mu ngi ko jënd weccee deux kilogrammes huit cent d'or bi mu ko weccee ba pare nag commencé di installer di euh, nu mu tuddati di constituer maintenant parce que xam na mission am muy constituer euh, son trésor de guerre ci la ñuy ci la doon jaay ivoire comme dëkk ba ay ñay rek fa mu ñuy rey ci ñay yi di jaay ivoire bi jaay nañu Cheikh Oumar initié na ay vente ivoire ba Portugal ba Portugal alors moom il avait des antennes partout c'était un euh, citoyen du monde ce n'était même pas un Africain euh, ni un Sénégalais c'était un citoyen du monde pour moom frontière existé wul parce que l'islam amul frontière loolu moom loolu la gisee woon euh, euh, addunaam euh, démarche am alors bi mu jëndee nag Dingiraay tuddee ko Dingiraay bi mu jëndee terre boobu ci Mbasaaxo bu tuddee ko di moo am nag ñu dem ci yimba saaxu buur bi ni ko Cheikh Oumar daal mi ngi rey ci ñay yi di jaay ivoire bi di ko jëndee ay armes alors yimba yónnee ci moom ñu ko na ko delloo suufa loolu moo indi sa première confrontation ak yimba yimba saaxo alors ñu dem ci ay péripéties yàgg na nag ñu yàgg ñoom ñaar di daje eh, armée yi ba fi ko Cheikh Oumar di vaincre ah yimba sax jéem a jéem ko nax ni dafa bëgg tuub nekk jullit ndeke du woon dëgg et tout ça pour que Cheikh Omar épargne ko donc bari na nag ay buur yoo xam ni euh, jànkoonte na ak ñoom ba ñii walbatiku nekk jullit avec tout la sincérité qu'il faut mais ak ñoo xam ni dañ leen obligé dañu dee dañ leen rey wala boog ñoo xam ni dañ doon trahir comme kii yimba Euh, naan ko na leen tuubal mu tuubal leen ba pare après dañuy wëlbatikuwaat suñu defaroo ba jekk rek wëlbatikuwaat mais ñooñu ñëpp après Cheikh Oumar gañe na leen waaw. Euh, livre bi mi ngi jar quarante mille francs CFA les quatre tomes ñu mën ñu ngi ko mën a amee euh, fële à la maison d'édition L'Harmattan parce que ñoom ñoo ko ñoo ko édité d'ailleurs gënoon na cher. en euh, en premier ils avaient ñoom dañ ne woon 60 000 lañ koy jaayee parce que dafa waroon am une euh, pochette dafa commandé woon benn pochette bu yéeme bu rafet boo xam ni quatre tomes yëpp day dugg ci biir bon ñu waroon ko defar à Paris mais mm, la nu mu tuddati l'harmattan Paris daan ni euh, c'est pas la peine avec à cause du Covid nañ ko defaree fii alors ci lañ ko jëlee muul bi bon bàyyi pochette bi nag au lieu de 60 000 ñu wàññi ko mu di ko jaayee 40 000 francs CFA. Euh, le dernier mot xanaa junj parce que avec Cheikh Oumar dernier mot dernier mot ça n'existe pas dafa am benn euh, politicien russe. bu tuddoon euh, Trotsky doctrine am mooy euh, à mon sens doc ci doctrine politique doctrine euh, vision de société man moom laa gën a gëm ci communisme mooy li ñuy wax la révolution permanente yëf du arrêté du taxaw boo gañee étape bii rek am na benn bu jàkk bu nekk sa kanam alors euh, loolu lu ma ko méngale nag ak Cheikh Oumar Trotsky parce que Trotsky dafa taxaw mu jiwul continuer dafa taxaw alors que euh, révolution permanente boobu réaliser wuñ ko ak à cause de beaucoup de difficultés mais Cheikh Oumar révolution permanente am laaj nañ ko ni ko waaw ak tubaab yi ku gagné mu ne ah tubaab yi de am nañu seeni i arme am nañ seeni arm lu ñàkk ni sax yàlla dogal ni ñu mën ci wàllu xeex wàllu arme mais am naa loo xam ni mënuñu ko am ba faw ñu ni ko lan la mu ni dama leen jiitu ci xolu gaañ yi lii ma def nii dinañ ko déggee fii ba nekk ca xaay ca nigeria ca Égypte ca Libye fépp dinañ li ma yore dinañ ko dégg ba ca xor xeer wala ca gannaaw ca géej ga xeer bi ci almadi muy wazifa ak ak ak zikr salatul yooyu mooy je crois le dernier mot nga xam ni perspective lay ubbi perspective surtout pour notre jeunesse pour notre jeunesse et encore une fois dafa am lu may leeral livre bi binduma ko à cause de la famille marine binduma ko à cause du tijanisme bi livre bi dama ko bind pour tous les sénégalais et tout ce que ça intéresse à travers l'Afrique et à travers lu monde il faut que ñu wone ni am na benn ci moment bi nga xamee ni doole doole lañ arme lañ nit ñi yaakaar ak violence ñu wone ni quelque part am na kuñ doon tuumaal ni c'est un chef de guerre boo xam ni xamul dara amul xam-xam réaté rek la mën ñu wone nag léegi xereñam ci livre bi wone kan mooy Cheikh Oumarul Foutiyou Tall alors soo xoolee tubaab bi ennemi Cheikh Oumar la musul bugg Cheikh Oumar mais tubaab bi ci boppam dafa gàgg parce que lan la wax il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara waaw noonu doo ko bàyyil un grand point d'interrogation boo xam ni yow da ngay wane ni tu es xam loolu mu demee loolu moo tax ñu war a mën a wàkkilu ci Cheikh Oumar wane ni dafa daf fi bàyyi liggéey bu colossal liggéey boobu nag du loo xam ni moom daf ko bind bàyyi ko fii parce que bind na mais li mu soxla surtout mooy ñun enseignement yi ñuy tiré ci li mu def pour mën a avancer mën a créer autre chose pas dellu ci société bi nga xam ni Cheikh Omar moom la doon vivre mais jaa di utiliser ko comme tremplin pour mën a avancer.